y yalla am mbégte ñëw délégué ci agder ak DER ak euh, les présidents de FETCHER euh, qui sont répartis dans les 46 départements du Sénégal am ci li ñu boole muy liggéey nano crédit ak bénéficiaire. waaw faîtière yi dafay yombal euh, collaboration bi ndax amaan équipe technique nano da daan bëgg a dem seeti fédération bu ne mais bu ñu defee faîtière fédération yi dañu tënk ci xaatim di jottali seen i ci délégué. ak di andiwaat ay xibaar ak euh, ni ñuy defaree liggéey waaw mënul ñàkk parce que nit ñi ñoo baaxoo noonu nit dina leb feebar du mën a fay nit dina leb nekk dans des difficultés liggéeyam yàqu du mën a fay nit tamit dina jël xaalis daal di gaañu loolu nag tey moo tax euh, ñu daje fii pour gën a xam naka la ñuy yeesalaatee toogaay bi ak euh, nu ñuy yaatalee délai yi euh, ba nga xam ne nit ñi dinañ mën a fay te duñu lot. madame Fatou Niass mu ngi expliqué parce que nanu crédit yaakaar naa li gën a nekk objectif am mooy autonomisation. sànq mu si joxe exemple benn xale bu yoroon benn table ak ñaari par am mais man dama lay jox beneen exemple Fatou beneen exemple boo xam ne moo gën a gën a patent euh, ay femmes yoo xam ñu ngi nekk dans le département de Kaolack benn village bu nekk ginnaaw Latmingué c'était dix femmes ñoo ñëwoon jël si nano bi ku nekk jël cinquante mille donc ñoom dañu regrouper seen cinquante mille yi mu nekk cinq cent mille Euh, ma ne laaj leen ban activité ngeen def ñu yow jox ñu rek de toute façon bu fay jotee dinañ la fay ñu dem jënd ay ay bëy hmm? euh, téé ko 2 mois après jaay bëy yooyu ñeu fay am seen bénéfice jëlaat 75000 ku nekk biñ démé jëndaat encore ay bëy biñ biñ biñ jaayee seen deuxième kii bi ci lañ fay deer né ñom liñ yor mun nañ ci dem ak seen seen seen seen seen kii donc ça veut dire que lool mom exemple autonomisation bo xam la bu bu am importance té te wax dafa nek produit bo xamné day viser la couche vulnérable ñi nga xam amuñ possibilité dem dans les banques classiques donc dañ lay faciliter produit bi donc pour nga am ci accès facilement te taux bi encore c'est très faible 5 pour permettre ñoom ñu. waaw ñun euh, nano bi bañ ci commencé ba léegi duñ jóg ci chaque jour comme ni mu wax di évaluer suñu bopp di xool yan jafe-jafe lañ am parce que ñun jafé jafé ñu ngi koy xamé ci bénéficiaires yi bénéficiaires yi ñoom ñëw wax ko fédération bi fédération bi indi ko faîtière bi faîtière bi indil ko wa nano n'est-ce pas agent administratif agent administratif indi sun patron muy Fatou mi mais problème yiñ ci yiñ ci rencontrer moy surtout problème mu recouvrement bi parce que comme li ngay wax rek euh, wa DER ñëwuñ ni ñoom kii la lebal ñom fédération bi ñoom ñooy xool ñan la ñuy lebal mais booy booy sélectionné nit aussi pour mu leb li nga am rek mooy da ngay am ci moom yaakaar donc am na ñoo xam ne moom vraiment góorgóorlu nañ ci bu baax ñu ngi fay di jëlaat ba am ci avancement bu baax donc problème bi ñu am surtout mooy problème mu recouvrement recouvrement moom am nañ ci problème te comme ni mu wax boole nañu ak préfet yi département yi ñu ngi ñu ciy jàppale mais bien vrai que des na mais ñu ngi ñu siy pour ñu gën a mën le def recouvrement yi principal problème fi mu ne nii recouvrement yi te problème bi nga xam ne euh, bénéficiaires yi ñu ngi ko doon wax te ñii réglé ko mooy durée bi par exemple boo crédit bi dafa nekk de 3 mois euh, après 3 mois 6 euh, mois mais maintenant à partir de 100000 rek yóbbul nañ fait. 6 mois 100000 000, 300 000 ko 6 mois donc à partir de 300000 000, 500 000 ko 12 mois donc à partir de bu 000, 500000 c'est-à-dire 1 million yóbbu ko 15 mois ak 3 mois il xam a lay pause pour nga travailler door recommencer. commencer vraiment nous avons fait des efforts pour améliorer le produit